Jakarta nekkul modèle économique bu baax risque yam mën a indi daal dinay bari lool nee na daal li ñu manqué moo di sérieux ak sérénité loolu nag kàddu euh, Pape Djibril Fall la moo ko daal di yëkkati rek ginnaaw rek ba conseil présidentiel ngir l'insurrection ak emploi des jeunes ñu jàppoon ko rek ni ki alxames bi ñu génn yemoo woon nag ñaar fukki fan ak ñaar ci njiitum réewum Sénégal daal di defee rek bule mbir waaye nag kii di Ousmane Noël Dieng daal di rek ay kàddu taftal ca yooyu les kàddu yu Pape Djibril Fall nee na moom day laaj lan la bañee njiitum réewum Sénégal di Macky Sall ndax gis na ni saa su nekk rek day jël rek ay kàddu yu ñagas di ko teg rek ca ndoddam ndax nee na bu ne Jakarta nekkul lu baax moom loolu daf koy weddi ndax ñu yoree Jakarta dañuy yóbbu saa su ne rek dépense ci seeni i kër nag nee na Pape Djibril Fall deful leen rek lu dul war a noppi ndax moom defalul dara rek sénégalais yi nee na journaliste la dafa war a yem rek ci rôlam boobee waaye nag ni mu bañee rek njiitum mu Sénégal daal jaaxal na ko ba tax rek mu cay samp rek ab laaj di laaj ndax opposant la wala lan ndax nee na musul gis rek mu wax dara loo xamante ni rek baax baax la jëm ci kii di Macky Sall mu di lépp loo xamante ni lu baax lu Macky Sall def nee gis Pape Djibril Fall rek di rek mu daal di yëkkati rek ay kàddu yoo xamante ni rek mu mel ne ni ay tëkku la ngir xamal ko ne ko dafa war a noppi noppeem ah, jot na ndaxte bu ñu waxee ne rek wurul nangu ñu naan dafa mën a wax rek tax rek muy wax lu ko neex nee na moom daal dina bàyyi rek Macky Sall ndax noppeem rek dafa jot mu mel ne rek ay kàddu la yu Ousmane Noël Dieng daal di yëkkati rek jëme ci ah, Pape Djibril Fall mu koy xamal daal na noppi doy na ngir mu bàyyi rek kii di ah, Macky Sall